mbokki Touba mbokki Mbacké seen mbokki réew Boubacar kamara moo leen di nuyu di leen ziar di jiital ci ziar bi sëñ Mountakha Bachir Mbacké di xalif général des Mourides du koy ñaanal mu yàgg fi téwél di nuyu xalifa kër yëpp fii nag liñ fi wax ci sunu programme barewul sunu programme daara bi dañuy fexe ba état bi ci boppam ni muy jëlee en charge jàngalekat yi ci wàllu école école française ñu jël ko ci wàllu daara yi moderniser ko waxtaan ak ñu yore daara réfectionner fi ñu nekk def fa ay conditions de travail yoo xam ne yi xale yi dinañu jàng ci yàmm ba pare du yàq seen jàng école ñu boole ko ñoom ñaar ci sunu programme également wàllu ndox mi dinañu fexe fépp fu ndox mu set ndox mu baax nekk ñu dëgëral ko fépp fu ndox moo xam ne dañ ko war a liggéey ba mu sotti ba nit ñi mën koo naan te du ñu am benn risque ñu liggéey ko kooku suñu programme la moom la ñuy wax eau à gogo maanaam ndox mu ne gaañ. Touba yi dafa am problème mu foncier zone boobu nga xam ne këru Serigne Touba la kër yu mag yi wër Serigne Touba kooku dafa war a am statut spécial. statut spécial boo xam ne bii mu ngi mel ne ku am sa kër am sa titre foncier nga doxal ci sa diine communes yi ñu jël ko tasaare ko ci li des ci wàllu Touba ñun loolu mooy suñu projet dinañ ci waxtaan ak ñëpp parce que dañuy taxawal benn loi d'orientation sur les questions religieuses et culturelles bu ñu ñëwee dinañu def suñu proposition waxtaanee ko këru diine yëpp importance bi mu am ci wàllu koom-koom ñun am na lu ñu ci xam parce que yore woon nañu droit ñun bi ñu ñëw dañu fekkoon ñu tere ñu tere conteneur yi du dugg Touba man mii maa ko indi ma ne léegi bàyyi leen conteneur yi ñuy dugg Touba moo tax tey foo tourné yaa ngi ko gis magasin fii mun nga fi tabax sa kër ba jóge bi te doo jël benn bagage boo xam ne bii yaa ngi ko jëlee Dakar mooy kenn mënul bëgg Touba bañ Mbàkke parce que Mbàkke moom mooy supportu Touba donc investissement yi boo ko defee xale yi mën a jàng hôpitaux yi nga mën ko organiser am na yu fi nekk déjà nga renforcer seen seen plateau médical bu ñu ko defee dina nekk une ville moderne ñu boole ko ak foofu laa jeexalee ci tourisme religieux. ñu def circuit touristique boo xam ne biir Touba la képp ku ñëw bu nga xam Touba dafa am circuit ñu am ay guide am ñoo xam ne ñoo leen di won yoon yi ñu yóbbu histoire Touba. di fa jàng ñu am zone yoo xam ne dañ leen wane histoire Sëñ Touba wax leen histoire Maam Cheikh Ibra Fall expliquer leen lan mooy suñu patrimoine culturel donc loolu mooy suñu vision pour Touba ñu leen gërëm di leen sax